Euh, di nuyu sénégalais yi di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi euh, xëy na yàlla def na ne boobu ba tey ñi ngi dégg lu nekk ci internet bi ñi ngi gis lu nekk ci internet bi ñi ngi wax lu nekk ci internet bi mais comme ni Doro gay di doxee rek ñun noonu la ñuy doxee moo tax tey ñu décidé ne dañ wax ak sénégale yi parce que sénégalais yi ñoo jar a waxal ndax Doro gay li mu nekk Sénégal je pense que ci sénégalais yi la ko def ni mu taxawee Sénégal sénégalais yi gisal nañ ko seen bopp li am nag ñëpp xam nañ ko ñaari nit ñaari civil yu joté la ñu jaay kenn ki kenn ki soxlaatul wala wóolootul lañ ko jaay mu bëgg ñu délo ko xaalisam ki nga xamantene moy dooro gay d'accord pour délo ko loolu nga xamantene mom la ko joxoon waaye gis nañ li nga xamantene moy ndogal bi ci justice del mom nak nitu dëgg la nitu jamm la nitu salam la kon ku fonk justice su réewam la ba taxna na bépp décision bu justice jël ñun amuñ ci benn commentaire bu ñuy def xana kay dañuy utiliser waat yenen moyen ak yenen procédure yi nga xamantene justice may nañu ko ngir que ñu mëna am ndam ba mom mu am liberté Delu dellu ci liggéeyam dellu ci dimbal bi mi dimbali askan bi dellu ci taxaway bi nga xamantene mi ngi koy taxaw sénégalais yi. ñu bari japp ne euh, jamono ji nekatul civil ak civil mais état du Sénégal daf cee duggal loxo pour genre fay est-ce que lolu non xalaat bobu sénégalais yi am est-ce que même xalaat bobu ngeen dunduyé ah man maa ngi tribunal.

sénégalais nak so nekkee un bon citoyen su justice décidé da ngay accepter li justice décidé wayé nga utiliser wat yenen moyen ak yenen procédure yi la justice may pour que nga mën am dab liñu gëm moy lepp lo xamante ne Doro Gaye mi ngi koy def fi ci réew mi lepp lo xamante mi ngi koy taxaw fi ci réew mi je pense que dañuy jël témoin sénégalais yi gis nañ ko ci keuru diine yi gis nañ ko ci keuru aada yi gis nañ ko ci daaray alxuraan yi gis nañ ko ci université yi gis nañ ko muy dimbali néew gu doole yi gis nañ ko muy tàmbali di jàppale képp koo xamante ne da ngaa feebar te sa loxo jotul sa ginnaaw gis nañ ko ni mu taxawee ci xel kom encore ñuy remercier di di di di jërëjëf di sant këru diine yi nga xamante ne nekk nañ Sénégal moo xam Touba moo xam Kaolack moo xam Tivaouane amul kenn ci ñoom ku tànqamlu li nga xamante ne mooy nattu bii dal ci kaw Doro Gaye mm-hmm. waaye nag comme ñu koy waxee jaam yàlla mooy teg jaam nattu te yàlla su la tegee nattu danga koy nangu li ñu gëm mooy li nga xamante ne moom la door a ngay taxawee ci ci réew mi dañuy wax alhamdulilah kenn jàpp ko ci sàcc alalu réew mi kenn jàpp ko ci dorog kenn jàpp ko ci def naka sadul noonu jënd ak jaay yàgg naa am coow yàgg nañ ko lijjanti yàgg nañ ko régler ci loolu la ci loolu la Euh, est-ce que communiqué bi ni yexul da ngeen jël da ngeen dem ba ànd ak Doro gay ci rythme manam mom tek ci souf rek Doro Gaye boo problème bi la nit yi di soga a xel image yu bari photom yu bari ci lañ kay soga xam est-ce que lolu yeen waron na len est-ce que waron leen won teel ju je pense que je pense que dafa am lo xamantene euh so nekkee un responsable mhm. do tontu waxu mbedd do tontu ku tok yor téléphone di wax ont ko neex do tontu ci waxal yow na ne ak suñu liñ lay waxal amul waye tay li tax ñu indi c'est parce que sénégalais yi lañuy message parce que sénégalais yi ci seen jëmmi bop ñoo bëgg sénégalais ci seen jëmmi bop ñoo and ak d'orogay. ndax dafa and ak ñom ba taxna ñu leen rassurer waat encore une fois mi ngi ci Salam. ku gëm yàlla la waaye aussi ku gëm justice su réewam la ba tax na bépp yoon bu ñu yàlla may bépp yoon procédure bu ñu war a mën a jaar ba tax ñu am liberté mu dellu ci liggéeyam dinañ ko def ndax am nañ confiance ci su suñu su réew te gëm nañ ne incha allahu rabi dina am liberté ñibbi ci jaay njabootam. Euh, je pense que loolu déggoon nañ ko ci presse bi boobu yëpp. Mhm. mais fi ñu toll nii. je pense que dañuy am confiance ci suñu justice. nangu li mu dogal. suñuy avocat def li nga xamante ne yoon may na leen ko pour que ñu mën a relancer waat combat bi mën a am liberté pour que Doro Gaye génn dellu ci njabootam dellu ci liggéeyam dellu ci lu baax li nga xamante ne Sénégal moom lañ ko xamee dellu ci taxawu aveugle yi dellu ci taxawu néegu doole yi dellu ci taxawu daara yi dellu ci taxawu këru diine yi parce que loolu lañ ko xamee xamee wuñ ko tontonte xamee wuñ ko xuloo xamee wuñ ko wax lu ñaaw xamee wuñ ko defante te loolu du ko mus a am ndax yàlla moo ko sàkke noonu je pense que kon ñun ñëpp suñu fierté la xanaa kay di dalalaat xelu sénégalais yi di dalalaat xelu mbokk yi xelu am di jàmm yi ne mi ngi ci jàmm te incha allahu rabi dinañ am ndam ci li nga xamante ne ci lañ nekk. dernière dernière question balaa may bàyyi sama gars euh, yeneen plainte yi ñu ciy dégg est am na parce que a communiqué a jege est-ce que ak ci c'est que fi mu à nii suñu amee lu ñuy leeral. mooy li ko opposé ak monsieur Saw. li ko opposé ak monsieur Saw. moom li mu ci waroon def def na ko xam nga muy lan ñëpp doon nañ wax naan gay dafa daw génn réew mi moo ñëwal mi police pour lan pour régler problème bi nga xamante ne am ko ci diggante ak je pense que ku mel noonu ku mel ku mënoon na def ni ni ni ñëpp waxoon mooy que daw na dem na tëgg Europe am na fa lim fa war a am toog na fa mais déedéet ku bëgg Sénégal la ku gëm Sénégal la koo xamante ne dafa gëm ne sénégalais bu ci nekk war ngaa mën a taxaw jàppale sa askan jàppale sa réew ba mu jëm kanam moo tax mu ñëw dem ci yoon waxtaan ak yoon waxtaan ak ki mu joteel ba war koo mën a jagleel li nga xamante ne mooy delloo ko li mu soxla loolu nag je pense que ñëpp xam nañ ko. yoon nag def na li nga xamante ne moom moo ko doy dañuy nangu li ñu yoon di di def waaye aussi du tax ñu bàyyi am na yeneen yoon yu ñu may am na yeneen procédure yu ñu may dinañ ci def loolu mais ñu xam ne Doro musul daw génn réew mi deful lu muy dawee di génn réew mi tooñul kenn jëlul alalu kenn jëlul alalu askan bi nga xamante ne moom lañ moom moom la askan bi moom au contraire nit la kuy liggéey di jël ci kàttanam di jël ci dooleem di ko jàppale askan bi te genre je pense que loolu sénégalais yëpp mën nañ ko teewee sénégalais yëpp mën nañ ko seede li ci des nag dañ koy bàyyi ci loxo yàlla suñu borom parce que ay jullit lañ ay murit lañ li ñu gëm mooy yàlla su tegee ndogal da nga koy nangu yoon su dogalee danga koy nangu waaye da ngay def li nga xamante ne mooy yoon yi la procédure procédure yi la yoon may nga def ko ànd ceeg say avocat ba yàlla may la ci ndam te ci loolu lañ def tontante wuñu werante wuñu teesante wuñu ku ñu tooñ paal nañ la ku ñu waxal lu ñu deful paal nañ la ku ñu giñ loo xamante ne defuñu ko paal nañ la Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ñoo war a bokk ndey ñoo war a bokk baay loolu la door a gëm loolu la ñun waa plateforme Xëppil Xool gëm ñëpp ci social la ñu xamee ñëpp ci médiation lañ ñu xamé ñëpp ci jamm lañ ñu xamé yoon bobu nak duñ ko mus wacc parce que loolooy njariñu Sénégal. mais monsieur Ndiaye euh, boo ñu mëne revenir touti parce que bari na ay leunk leunk yi nga xamné amna ci ci ci ci ciow Doro Gueye. seen gars yi ñoo ngi ñoo ngi wax né que Doro Gueye dañoo nekk di réviser patrimoine yi bi nga xamné mom détenir nako ko. leneen li tamit mooy nee ci biir sax mbir bi nangu nañu këram ndax loolu mun nga ñu ci indil ay leeral ci je pense que mooy li ma wax sànq amuñu jotu tontu waxu mbedd ndax li ñu liñ ma laaj officielul du benn voix bu officiel bu ko wax internet nag ku mu neex yor sa téléphone bind ku mu neex yor sa téléphone TikTok ku mu neex yor sa téléphone def live waaye ba tey fi ñu taxaw di wax li ko opposé ak monsieur saw moo ñu indi fii li mu ci waroon def mooy dagg voyage bi mu doon def Europe ndax sénégalais yi ku nekk doon wax dafa daw mu ñëw dem wuyu ji yoon waxtaan ak ki mu war a waxtaanal ki mu joteel ba war koo delloo waaye yoon gis nañ li mu dogal dañu ciy teg suñu loxo gën a taxawaat gën a defaruwaat fas yéene jàkkaarloog li nga xamante ne mooy yoon xool li ñu yoon may ñu mën koo am pour que mu mën a am liberté dellu ci liggéeyam je vous remercie merci beaucoup.